ñu ngi lay fay di nuyu mbooleem internet uh, yi ñuy seetaan di am mbégte bu baax partager plateau bi ak uh, sénégalais yi ak uh, le monde entier pour mën a wax ci actualité bi nga xam ne tey mu hmm? ngi ci point culminant parce que li xew lu doy waar la fas yéene waxtaan ko kon fas yéene éveiller les jéem a wax suñu xalaat par rapport à l'actualité loolu c'est extrêmement important je vous en remercie. merci beaucoup euh, ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci présentation bi bég si la ñuy am également ñun ñu partagé plateau bi ak yow fas yéene waxtaane lépp luy actualité du jour ñu gisandoo li nga xamante ni moo xew ci réew mi euh, en tant que patriote euh, ñu lay laaj ci ban lecture nga am d'abord ci li nga xamante ni moo fi jàll dox ci diggante. Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ci procès bi naka nga jàngatee procédure bi d'abord. waaw c'est-à-dire au fond procès bi du début à la fin jaay doole la euh, abus de pouvoir la man maa yore pouvoir bi yow nga nekk opposition mën naa la teg lu nekk jaare ko ci justice euh, bu amee li may wooye man dénigrement politique nga xam ni teesante politique yàgg na fi. kenn mosul xalaat ni teesante politique dina atterrir devant les juridictions ba ñu ci condamné ku nga xam ni biñ ko condamné kontaan na ci loolu génn ñooñu ni que nun ne sommes pas satisfaits mu interjeté appel ñu dégg ni juge boobu sax ñuy wax ni Pastef la nekk muy euh, manque de respect au juge ñu dem ba li ñu bëggoon ñu am ko mooy euh, ñu condamné ko à six mois loolu yëpp c'est du cinéma c'est du théâtre te réew bu ñu la ko dénkee da ngay taxaw taxawaayu euh, bu am responsabilité ak engagement ndax du caaxaan parce que 17 million de sénégalais bu ñu la joxee seen baat danga nga war a xool lu nga xam ni moo leen di indil jàmm xool li nga xam ni dafa euh, dem dans le sens d'un apaisement euh, de la situation parce que lii li ko waral yëpp mooy am lu ñu bëgg lu nga xam ni véritablement du seen cër ñu taxawoon taxawaay bu nga xam ni au commencement wane woon nañ ni loolu duñ ko mos a def ci àddina tey ñu bëgg ko imposer ba pare nag gis ku nga xam ne am na popularité ak sérieux bu nga xam ni Sénégal yëpp euh, jox nañ ko bopp ñu ni kooku fokk ñu faagagal ko donc procès bi ay caaxaan la appel bi ay caaxaan la Pastef dafa rejeter complètement euh, li nga xam ne mooy verdict bi ca tukkee ñun jàpp ñu ni verdict bu normal la. lan moo tax jàpp leen ni verdict bu normal la cela montre que ni Sénégal. justice dafa am nu muy doxe justice du doxee deux poids deux mesures justice dafa war a tëdde njaaxaanaay ndax sénégalais yépp la fi war a nekkal justice bi nga xam ni dénigrement politique yàgg fi am yàgg naa gis ñu naan euh, diw am na tant de milliards diw am na tant de milliards loolu depuis 2000 ñu nekkoon nañ fi opposition di ko génne ci pouvoir 2011 euh, nee nañu 7 milliards de Taïwan mu indi coow ba am ku dem ci sëriñ baara euh, di am lu mu fay ñaan waaw loolu yëpp tribunal mosu ci dugg ndax justice moom lu sérieux la te dafa war a taxaw équitablement mais depuis ces quelque temps là dañu gis ni dañuy utiliser justice pour faagaagal un adversaire politique xam nga deux cent millions d'amende amande bi lu tax yokkuñu ko waaye li ñu doon wut mooy yokk li nga xam ni dafay indi jiixi jaaxa ci lii candidature Ousmane Sonko nga xam ni lii jeexi jaaxa bi am si candidature Macky Sall muy président de la République ñu bugg indi jeexi jaaxa ci beneen camp bi pour que ñu mën a négocier xool nan la ñuy demee dans une posture bu mën a favoriser tout le monde loolu du dëgg du yoon ndëgg sërëx la complot la ba pare chantage la chantage bu nga xam ni dañ pour ñu ñëw ci dialogue bi pour mën a waxtaan ak ñoom pour que. ñoom ñu mën a teg seen li nga xam ni mooy deal yi ñu yàgg teg loolu nag Sénégal dafa toll fu nga xam ne tey loolu mënatul nekk. donc yéen da ngeen a jàpp ne euh, amende bi nga xamante ni wala sax condamnation Ousmane Sonko euh, c'est juste pour ñu éliminer ko ci ci élection présidentielle 2024. depuis acte yi ñuy def yëpp mooy acte yi ñu posé woon depuis bi ñu roofee ay article 29 L29 ak article L30. bi ñu ko roofee objectif bi moo doon seet képp ku nga xam ni da nga populaire ñu éliminer la éliminer nañu benn yoon Karim nga xam ni wax dëgg yàlla même bu fekkee ñu ngi koy jiiñ ay mbir dama yaakaar ni euh, euh, élection suffrage direct la da ngay laaj xalaat ki nga xam ni mooy population bi kooku kay même bu fekkee jàpp nga ni kii violeur la wala kii sàcc la wala kii nàng la mais laajal ki nga xam ni ñoom ngay gouverner ñoom ñëpp ku nekk prononcé wu loolu <laughs> mooy démocratie waaye bu fekkee yow tout au début da nga roof ay article pour éliminer ay nit mu jàll ak Karim Wade peut-être popularité bi wul woon noonu mu jàll ak kalifa Sall popularité bi xëy na dew mais kii dafa am popularité extraordinaire bu nga xam ne mosul am ci Sénégal nga tiit nag fi nga toog di créer ay dossier créer nga dossier Adji Sarr ñu gis ni am na ay problème yu rëy yu nga xam ni dafa am ay contradiction yu nga xam ni sénégalais yëpp xale bu ndaw tey boo ko euh, interrogé woon ci mbedd mi mu ni la complot la nga jël loolu teg fee indi dénigrement politicien nga xam ni yàgg nañ ko fi gis depuis le temps de Senghor depuis Abdou Diouf depuis Abdoulaye Wade yàgg nañu opposition di dénigrer ñi nekk pouvoir naan leen yéen jël ngeen nangam yéen am ngeen ay milliards yéen am ngeen lii am ngeen laa nga jël loolu indi ko sur le plan judiciaire utiliser la justice ñu rendre verdict bu nga xam ni véritablement verdict bu xaw équitable la nga dindi ko pour am. li nga xam ne mooy condamnation buy indi jiixi jaaxal loolu c'est un acharnement contre un homme politique te Macky Sall na fait que suivre dafay topp rek li mu waxoon waxoon na ni dina réduire opposition bi à sa plus simple expression mais boobu dafa fàtte ni population bi ñoo ko fal te population bi ñooy décider te tey ku xew gis alerte bi am un peu partout au Sénégal du Ziguinchor kese nga xam ni kat véritablement élimination bi mu doon def Khalifa Sall wala bi doon def Karim Wade ak bii bokkul te les gens vont résister. d'accord si say kàddu ñu dégg tout à ngay wax ay création de dossier est-ce que fii jàpp nga ni am na création de dossier d'autant plus que gis nañu Ousmane Sonko moom moo génn daal di joxe ay révélation xam nga révélation loolu laa la wax yàgg na fi génnoon nañu 2000 nii diw am na 5 milliards diw 10 milliards diw quinze milliards ñi ko doon génne opposition lañ nekkoon est-ce que tax na pouvoir bi fi nekkoon jël leen yóbbu leen leen dénigrement wala yóbbu leen ni leen diffamation pourtant ñooñu indi wuñ benn preuve wax naa la que en 2011 également am na leader yu bëri yu nga xam ni dañu nekkoon ci biir euh, gouvernement bi pourtant accusé nañ leen ni leen ku kii am na ay milliards kii def na li kii sàcc na li kii détourné na li mais loolu mosul atterrir devant la justice loolu bu atterrir devant la justice euh, justice day dañ complètement parce que diffamation dañ ko seenu feneen te dafa nekk dossier bu nga xam ni dañu daanu encore une fois de plus mooy lan diffamation boo xasee ba diffamé nit ñu yóbbu la ci yoon ñu condamné journal bi loolu jeex na keneen bu ko répété loolu di diffamation euh, euh, forum civil Birahim Seck bind na ci livre accusé moom il s'est diffamé lui-même moom moom ma moom Mame Mbaye Niang parce que moom moo jëkk wax ni rapport bi am na Amadou Ba kon diffamé na ko parce que amadu Ba wax na ni rapport bi am na kon loolu yëpp bu ñu ko boolee dafay te indi thèse u complot bi nga xam ni ñu ngi koy teg devant une personnalité bu nga xam ni tey dañ ko war respecter parce que ëllëg mën na yor Sénégal parce que fi mu toll nii gaa ñi bañ fa tolloo euh, mujj nañu yor Sénégal te moom fi mu toll ëpp fa ñu tolloon xam nga 2012 ku gis Macky Sall ak popularité am nga gis deux mille 2023 ak popularité Ousmane Sonko doo leen comparer y a pas photo donc loolu moo leen tiital en plus am ay dossiers yu nga xam ni ñu ngi koy topp mu wóor leen ni am na ay détournement de deniers publics yu nga xam ni am na fi muy 6 milliards yi nga xam ni euh, ci Covid bi la mu naqadi ñëpp naqadi monde bi naqadi ku ne ak yeneen dossier de surfacturation mais yooyu yëpp boo ko boolee dañuy jàpp ni ñoom Ousmane Sonko bu ñëwee da leen topp ci yoon loolu nag mooy yoon. léegi ñu bëgg ko jiitu ci mbar mi mais pas kenn du ko jiitu ci mbaram li nga xam ne dafa war a am dina am te ñoom mënuñu ci dara donc complot yi dañ ko teg ci suuf parce que réew bu ñu la ko dénkee danga war a taxawa tëddee njaaxaanaay gis nañ fi ay affaires yu gën a doy waar yu ko xam ni kenn woowu leen justice kenn inquiété wu leen Aliou Dembourou Sow wax na fi wax bu nga xam ni véritablement procureur dafa waroon autosaisir am na ay député yu fi taxaw ci biir assemblée nationale ni képp ku fi def warul def. dañ lay rey sànni la ci géej gi jën yi lekk la loolu correspondre à bi fi euh, Philibert Samb ak xaritam bi disparaître ñu waroon ubbi enquête ci loolu yëpp woo leen mais defuñu ko euh, Suzanne kamara taxaw wax fi ay wax yu doy waar ni ñun ñoo leen rey mu wóor que ni dañu waroon woote véritablement euh, autosaisiru woo ko laaj ko mais kenn laaju ko donc complot bi dafa leer naññ képp ku bokk ci camp président Macky Sall lu la neex wax lu la neex def fu la neex dem képp ku bokk ci camp président euh, Ousmane Sonko munoo wax munoo def même boo posté benn post Facebook mën nañ la ci tëj loolu lañuy ñuy vivre te loolu sénégalais yi yëpp xam nañ ko tey képp ku nekk Sénégal xam nga loolu loolu mooy la racine du mal loolu la ñu war a dénoncer loolu mooy la racine de la violence parce que violence mooy. ngay exercer injustice ci kaw nit violence bi ñu teg Ousmane Sonko violence gënu ko Mhm. Euh, tout à ngay wax complot ba tey ñu ngi wax ci ay complot bien vrai que am na ñoo xamante ni jaar nañu wax ci boobu les rapports mais ku toll Ousmane Sonko ñuy wax dañuy acharné wu ci moom tout le temps ñu ne dañuy comploter ci kawam ku mel Ousmane Sonko bu fekkente ni joxe na ay révélation ñu koy laaj preuve euh, mu ne du wuy si euh, li nga xamante ni moo di yoon ak nan lañ ko mën a lire li nga xamante ni moo di rapport bi nga xam ne wax na ko te ba tey gisaguñ ci preuve mais rapport boobu nañu laaj preuve ñu ko jëkk wax loolu mooy problème bi c'est-à-dire au fond <laughs> rapport bi boo buggee mu ñëw c'est un rapport émanant du gouvernement xam nga parti état moo baaxul xam nga da ngay nekk jiite réew boo jiitee réew nga taxawaay taxawaayu président de la république doo taxaw taxawaay bu nga xam ni da ngay faral benn parti léegi nag problème bi mooy parti état bi c'est-à-dire fonctionnaire bu fi def mais ñaata fonctionnaire lañ fi dàq wala ay fonctionnaire yu ñu harcelé ci dañu jël lu mel na rapport war a dara génne ko loolu mooy problème bi état bi dafay def pression ci fonctionnaire yi tey bu ñu waroon génnee rapport bi mën nañ ni lii du rapport xam nga fi ñu njëkk wax mooy IGE ak IGF dafa juum et cetera yooyu yëpp ça montre que c'est la charnement ba pare rapport rek bu nga xam ni wala diffamation kese mu dem ba am moor waaw moor ak diffamation lu gën a euh, lu gën a rëy benn ñaareel ba ñaata milliard wala ñaata million lañu perte ci bu ñu programmee procès daa di jël buntu kër Ousmane Sonko barricade ka kenn dootul dem kon dootul dikk gouverneur génne euh, arrêté bu nga xam ni dafay interdire bépp kuy xëy di yore moto nga xam ni ci ngay xëy nga xam ni légaliser nañ ko ñu ciy am dépense perte économique boobu mais est-ce que mamay ñaa jar naka wala diffamation jar naka investisseurs yi nga xam ni ñoom ñoo réunir euh, il y a longtemps au Sénégal mais dañu dénoncer woon sa fait là ni loolu dafay tax dootuñu ñame Sénégal dafay indi instabilité dafay indi lu nga xam ni véritablement ñiy investir seen xel dootul daal mais loolu yëpp ñu la dénkee réew nga war ko gouverner est-ce que war nga taxaw taxawaay boobu mais ñoom fi ñu nekk dañu nekk dans un état d'affolement total moo tax xamatuñ sax lu ñuy def. foofu foofu la ñu toll ci réew mi ñu toll également foo xamante ni. Euh, Ousmane Sonko lancé na benn euh, méthode de contestation xam leen ni actuellement ci désobéissance civile la toll euh, ku ne xam leen ni nii actuellement yàgg nañu koy woo muy resté Dakar cette fois-ci ñu gis ne ñaari procès yëpp nga xamante ni ci biir mois de mai bi la nekk dafa daal di dem Ziguinchor lan moo waral déplacement bi. xam nga <laughs> Ziguinchor moom moom il est le maire de Ziguinchor. Mhm. donc war na mën a dem Ziguinchor defe naa. empêché nañ que lu ba bari bari mu dem Ziguinchor war a liggéey te liggéey la fa am bu nga xam ne daf ko war a def ñu woo ko justice man mi biram Khoudia Lo bu ñu ma wooyee justice ma ñëw ma déglu sama justice su réew am ci moom confiance benn yoon mm-hmm. jaarul yoon ma indi ay preuve yu nga xam ni dañ ko teg muy audio MC Niass yi ñu mujj harcelé MC Niass ba mu daw génn réew mi ñu indi rapport médical bu nga xam ni Alfousseyni gay moo ko def ñuy topp Alfousseyni gay di mbëkk otoom di ko jox xaalis di ko neexal mu leer ñëpp Alfousseyni ci boppam en tant que médecin en tant que kilifa taxaw wax ko ñëpp dégg ko ñu jël loolu teg fee capitaine Touré bi nga xam ni moom def na enquête ni lii c'est du zéro c'est rien dara amu ci ñu jël enquête rapport boobu teg fële waaw man bu ma demee ba sama justice réew man la ma àq ak sama yelleef nangootuñ ma ko jox mais loolu mën naa taxaw ni justice bii yéen kat ni ngeen tëddee du noonu ndax yéen da ngeen ma war a yemaleeg waa réew mi yëpp bu ko defee ni ngeen may attee noonu ngeen war a attee waa réew mi yëpp mais man bu fekkee dangeen ma defal statut spécial bu ngeen may attee nga xam ni man da ngeen di acharné wu ci man preuve bu ma teg seen yoon nekku ci plainte bu ma def seen yoon nekku ci mais bu ma taxawee mën naa taxaw ni damay def désobéissance civile désobéissance civile du dama contre justice bi lépp ndax justice bi am na lu muy def lu baax mais daf ko jëmale ci ñeneen waaye man mi nga xam ni ñu ngi acharné contre man pour que justice bàyyi loolu muy def jëmale ko ci man damay taxaw woote désobéissance civile bu ma ko wootee justice dina seetaat boppam xoolaat nan lay tëddee parce que loolu aussi ëllëg attention l'histoire retiendra l'histoire dina retenir ni Ousmane Sonko benn lii lañ ko def ñaar lii lañ ko def ñett dénigrement politique ñu ni désobéissance euh, ñu ñu ñu ni euh, acharnement euh, ba indi lu ñuy woowee donc li ñu ko accusé mooy mooy mooy kii mu doonati diffamation alors que du dara lu kii nu mu doonati dénigrement politicien mu yàgg fi yooyu yëpp bu ñu ko boolee histoire dafay retenir ni Ousmane Sonko moomu ne bi mu fi nekkee ku ñuy wax président Macky Sall moo nekkoon au pouvoir justice nii la doon tëddee mais loolu est-ce que kenn du ko delloo sax sur la table pour que justice boobu nga xam ni ñi doon taxaw di juger di wax lu nga xam ni ils n'ont pas eu le droit mais est-ce que kenn du ko delloo si même bu ñu ko delloosiwul sur la table judiciairement histoire dina ko retenir te loolu li ci kanam rawi li bët donc nañu taxaw taxawaay bi ñu war a taxaw désobéissance civile boobu man de bu ñu ma attee nu ñu ma warul attee nga xam ni bu ma demee fee man maay añoo sacrifice bi nga xam ni wóor na ma ni fii la ñu jëm ak lii la ñu bëgg ci man man dootuma dem di wuuti wuyu ji justice boobu loolu rek la def te loolu ku nekk am nga ci droit. léegi bu fekkente ni am na droit daal di lancer désobéissance désobéissance civile Ousmane Sonko euh, gis nañu ne dugal na pourvoi en cassation te nee na wóoluwul justice bu Sénégal naka la ñu mën a expliquer loolu. xam nga dafa am ñaar. Mhm. dafa am lutte politique am lutte judiciaire. Mhm. yow bu fekkoon ni danga naan ma mi ngi mel na nga ni ma moom comme yóoluwul justice lu muy jëlee avocat déet di nga jël avocat. yow wóoluwoo justice waaye di nga jël avocat. c'est-à-dire mais dootul wuy jeeti c'est-à-dire nee na moom dootul wuy ji justice bu Sénégal. mais la nga war a def da nga koy def c'est-à-dire avocat yooyu laa bëgg commencer jël nga avocat avocat boobu nga jël moom dafa am liggéeyam bu muy def. Mhm. dafay def liggéeyam dafay topp dossier bi ba mu jeex lépp kàttan euh, kàttan bu kéemtalaay kàttan bu mu mën a def pour disculper la nga xam ni yow véritablement dinañu wane ni du yow mais da koy même bu ko wóoree ni. lii muy def kat du am moj parce que boo gisee avocat euh, inter euh, avocat Sonko yi di def une conférence internationale. Mhm. war ka defee France. mais c'est pour dénoncer aux yeux du monde entier que justice Sénégal ni la tëddee te loolu dama leen ci félicité bu baax yàgg naa ko ñaan ndax Sénégal nekkul un pays isolé dans un monde Sénégal dafa nekk signé ay charte euh, dem ONU am lu mu fa signé. CEDEAO mu am lu mu fa signé URA mu am lu mu fa signé kon tey bu fekkee ne mi ngi jalgati justice ci ki nga xam ni moom la ñu wóolu nga xam ni le tiers de la population ñu ngi ànd ak moom fu mu génn ñu taxaw kooku war nañu yëgal à l'international que kii de nii la tëdd démb rek maa ngi présider benn euh, installation de cellule bu nga xam ni Madagascar lañ ko doon defee. Mm. ca Ilie. Mm-hmm. ma ni leen li am solo ci li ngeen di def mooy. seen réew yëpp na ngeen leen xamal li xew Sénégal ak justice à deux vitesses bi fi am kon internationalisation du combat boobu buñ ko defee. Mhm. dafay tax justice su Sénégal bu tëddee nii mais justice du monde c'est-à-dire ONU ak feneen ak feneen dinañu wax ni lii de di xew Sénégal du dëgg te defe naa rajo yi nekk international ak télévision yi ñu ngi commencé di gis li xew mobilisation bi ñu def keroog war nañu wane nañ ko ci télévision yëpp. Mhm. accusation yi bu ñu ko defee mais ñi nga xam ni dañu yore ay organisme international di jël yëngu si wàllu yoon mais mën nañu jël dossier bi xool gis éléments yi mën nañu interroger justice Sénégal ni leen waaw yéen lu tax euh, MC bi nga xam ni dafa def ay audio jëlu leen ko en compte te muy une autorité religieuse te xam nañu dayoo autorité religieuse fii si Sénégal nga xam ni voix autoriser la lu tax jëlu leen en contre rapport médical bi nga xam ni kat kii daf ko jël muy Alfousseyni Gaye ak ni ngeen ko doon acharné woo ko loolu yëpp justice internationale mun na ko jël taxaw xool ni véritablement lii du dëgg bu ko defee ñu jabal mission mu ñëw waxtaan ak président Macky Sall parce que dégg naa ni Barack Obama ñëwoon na fi mais yooyu yëpp c'est des éléments yu ko xam ni c'est parce que a internationalisé le combat donc nañu xam ni Sénégal justice am du justice indépendante ba nga xam ni lu ko neex mu def aux yeux du monde ba pare kenn du ko wax dara loolu nañ ko xam Mhm. le monde est un village planétaire te ñoom dañuy dund 1960 wala 1940 moom la ñuy dund actuellement aujourd'hui le monde est devenu planétaire ba nga xam ni benn lañu lépp lu waaye def tey bu ëllëgee waa Amérique dinañ ko yëg gis nga image ñu toj euh, oto Sonko mhm. image yi nga xam ni ñu ngi koy xëcc di ko yóbbu image yi nga xam ni ñu ngi koy sotti seen produit boobu image yooyu wër na monde bi te loolu yëpp dafay conforter la thèse du complot la thèse de l'élimination benn opposant bu nga xam ni wóor na leen ni kii il est gênant gênant parce que dafa jub gênant parce que ñoom jubuñu te dañu bëgg ñëpp mel na ñoom te tey Ousmane Sonko dafa indi une nouvelle manière de fair la politique dégg naa ñu bare di indi ay hypothèses di wax mais c'est des hypothèses fallacieuses. comme yan ay naan way moom mi ngi cotiser loo waa Ziguinchor mi ngi def nii maa ngi leen di fàttali ni parti politique li koy doxal mooy cotisation ñoom ni ñuy defee. Mhm. loolu moo dul doxal parti euh, euh, politique mooy corruption concussion achat de conscience créer ay bourses familiales pour ñu lay woteel jël ay ay ay ay ay ay ay carte d'identité nit euh, di dem di leen influencer di joxe ay 1000 francs di joxe ay 2500 pour déplacer des populations. yooyu mooy corruption ci biir politique Ousmane Sonko dafa indi rupture nga xam ni citoyen bi mooy conscient ni kii de doy na ma kii de ku jub la kii man dinaa dindi ci li may liggéey joxe ko pour partem bi dox parce que loolu war a doxal parti mais kañ nga mos a gis fii ci Sénégal benn parti bu nga xam ni mi ngi cotiser loo nit ñuy cotiser amul. Mhm. donc ba tey bu ñu bu ñu bu ñu ci ci contexte boobu ñu gis ne Ousmane ko déjà euh, bari na loo xamante ni mu ngi ci ndoddam ngeen tuddee ko ni c'est juste euh, pour. Euh, l'éliminer l'éliminer comme juste da ngeen di wax noonu dañoo bëgg rëkk ndëg ndiggam génne ko dans l'arène politique ba léegi ngeen mën a jàpp noonu dossier yi bari na ci kawam wax ji bari na ci kawam pourquoi pas Ousmane Sonko ne dem dialogue waxtaan ak président Macky Sall. dialogue boo gis dafa am lu ko wënd am ay préalable. doo jóg rek woo ay nit leen kaay leen ñu dialogué du noonu benn avant ñuy dialogué loo def da jàpp quatre cent personnes yu nga xam ni amul différence ñëpp Pastef la ñu bokk <laughs> il faut le dénoncer aux yeux de monde entier aujourd'hui on a arrêté des gens qui sont tous de Pastef mais c'est extraordinaire c'est un acharnement un mu poser acte boobu ñaareel ba mu indi flu ci troisième mandat nga xam ni moom warul def troisième mandat la constitution le lui interdit formellement bu fekkee ni ñoom dañuy interpréter le droit nañu jël les textes ñu jox ko l'organisation internationale j'en appelle aux organisations internationales des droits de l'homme parce que la constitution du Sénégal peut être prise par ces gens-là et interprétée pour savoir si monsieur Macky Sall a le droit de faire un troisième mandat ils vont voir que c'est totalement faux il n'a pas le droit de faire un troisième mandat daf ko doon xeex en 2011 bu ñëwee tey bëgg indi loolu indi constitution bu nga xam ni bu doy waar la teg ci suñu kanam alors aujourd'hui ñuy xeex loolu mu taxaw ni kaay leen ngeen jaloge mais mooy dama lay teg épée de Damoclès ci sa bopp pour contraindre la pour nga ñëw jaloge parce que dialogue bi amul woon benn sens dialogue bi mooy président Macky Sall dafa war a taxaw ni ay la yéwén mënuma def troisième mandat ndax ba léegi waxagul ni mën na def troisième mandat bu dee mënul def troisième mandat dafay décrypter euh, le le le champ politique benn ñaareel ba ñii nga xam ne ay détenus politique lañu nañ leen libéré bu libéré ñooñu ba pare mu woote dialogue dialogue bi si lu muy nekk ñu définir bu baax dialogue bi si lu muy nekk. mais mais laata loolu yaa ngi wax ay détenus politique mais président Macky Sall a bien confirmé que détenu politique amul ci réew mi. xam nga bu nee détenu politique amul ci réew mi ñu bàcc ci jàpp Basirou Diomaye fay nga xam ni dafa posté benn mot mais loolu dafa lay wan ni li muy wax amul je suis désolé ñu jàpp ay nit yu mel na Falidou Keita nga xam ni moom moo doon def nemmeeku tuur bi ñu jàpp ku mel na alin Badra Mboup enseignant la ma koy rappelé war nañ ko libérer le 16 parce que deux mois lañ ko emprisonné mu doon coordonné li ñuy wax wër ndombo donc ñooñu ñëpp c'est des hommes politiques boo leen jàppee ci lu nga xam ni da leen fekk ci seen bureau ku mel na Diomaye fay biir bureau lañ ko fekk mu wàcc ci 22 heures man toog naa fa vingt 21 heures mu ni ma grand demal fii du am problème ñu dem 22 heures ñu fekk ko bureau loolu yëpp c'est des actes politiques qu'on mais fii nit boo koy jàpp da nga koy convoqué mu ñëw bu ñu ko convoqué mu ñëw yooyu yëpp ça montre que c'est des actes politiques waxuma la c'est des détenus politiques mais des détenus politiques perpétrés par un harcèlement politique dañuy harceler politiquement le camp de Ousmane Sonko et heureusement hein heureusement c'est des détenus politiques mais qui ont plus de courage que nous qui ne sommes pas détenus parce que euh, muy Diomaye Faye muy Moromani Kaba Diakité muy Falidou Keita muy ñeneen ñëpp koo dem fekk prison seeti ko dafa naan la combat bi na gën a tar na gën a tar ñun fii amuñu dara bu ñu jëloon suñu bakkan sax combat bi moo ñu ko gënal xam nga politique dafa dem ba toll ci Sénégal foo ko xam ni biram ko jëloo bu koy def dafay jàpp ni mi ngi jaamu yàlla xam nga bu tolloo foofu nag bokkul ak politique bi ñu doon def nga xam ni ay naxaate la ay corruption concussion achat de conscience lii dafa doon lu nga xam ni ñun dañ ko jàppe jaamu yàlla boo gisee nit ñi di déplacé wu dem taxaw buntu kër Ousmane Sonko dañu jàpp ñu ñu ngi ci jiyaat ñu ngi ci jaamu yàlla bu ñu jëloon seen bakkan du jëriñ dara te wax nañ ko. Mhm. ba tey bu ñu bu ñu bu ñu euh, gisee actualité ñu gis ne. également am na différend yu dox ci diggante Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz déjà gis nañu euh, keroog manifestation bi nga xamante ni M24 woote woon nañ ko gis nañu ni ñu doon yuuxoo bu baax ki nga xam ne moo di xalifa euh, Sall mu nekk loo xamante ni ñu baree bari ci Yewwi Askan Wi ñaawlu nañ ko naka nga jàngatee. Euh, lecture bi ñenn ñi am ci Ousmane Sonko jàpp ne moom dafa jàpp ne moom kese moo nekk ci opposition bi te it euh, benn bët la ñuy xoolee moom Ousmane Sonko moo ko yor jàpp nañu ne également deful benn jéego jëm ci candidature bu Khalifa Sall. candidature bu xalifa Sall Ousmane Sonko moo ko régénéré <laughs> ay la yooyu bi ñu libéré Ousmane Sonko de prison je précise parce que man lu may wax dafay leer. Mhm. bi ñu ko dee jàpp soutien yi bare woon na mais tarul woon noonu bi ñu ko population bi demee libéré ko ba pare la ñoom ñëpp ñëw toog di ko soutenir si la M euh, comment il s'appelle encore euh, mooy structure bi Cheikh Tidiane Dieye euh, defoon m d si la judd d juddul bi ñu bëggee emprisonné Ousmane Sonko mhm. ba ñu demee ba empr di ko jéem emprisonné population bi libéré ko ba pare la M2D boobu juddu il faut que ça soit clair. Mhm. donc ci la ñu bëri ñëwee parce que Ousmane Sonko bi mu génnee plaidé wul pour moom kese conférence de presse baa nga fa woon dafa plaidé pour Khalifa Sall plaidé pour Karim Wade. Mhm. muy lu nga xam ni kon tey bu ñu ñëwee dellu naan ma Ousmane Sonko plaidé wul pour candidature Khalifa Sall loolu sénégal yi ñuy seetaan def leen di def ree xam nga loolu mooy indi ay yooxoo ak nangam. mais loolu est-ce que nekkul position avant et après. parce que position bi Ousmane Sonko amee woon bu njëkk comme ambition yi ñu amoon ñoo ko bokkoon mais actuellement euh, ku ne xam na ni bokk suñu ay ambition pourquoi ma ni la c'est la même position mhm. mooy avant euh, Khalifa Sall wala Pape Djibril Fall wala keneen di dem Ousmane Sonko dafa joxe alerte mhm. ndax xam na le modèle social sénégalais mu ni bu ñu yooxoo benn leader nañu ànd ak dal ànd ak teg ànd ak tey leader bu fa ñëw jàppeloon ko comme sama bopp. Mhm. Ousmane Sonko man toog naa Pastef ma ñëw jël sama parti dugal biir Pastef ñu toog ci instance mu ni leen kii biram ko jëloo ñu ni ko an ah. mu ni leen ni ma mën a yor Sénégal la ko mën a yore. Mhm. dafa am modestie moo tax mu ñëw topp sama ginnaaw. Mhm. moo tax mu ñëw seeyal Ousmane Sonko noonu lay waxe ak ay mbokkam. ñun ñii Ousmane Sonko dafa ne nañu nañu nañu respecter tous les leaders te man leader la comme ñoom. Mhm. dama yoroon sama parti politique alliance pour la patrie et l'émergence dëggu. Mhm. donc tey bu ñu ñëwee Ousmane Sonko di wax ni nañu respecter ñeneen xamal ni moom dafa am esprit de dépassement et dafa am dafa tëddee jaaxaanaay. Mhm. dafa bëgg niñ ko fonke ñu fonke ko yeneen leaders yi man mi wax na ba tey. ci biir Pastef bi nañ ma fonk comme niñ ko fonke moom mais lan moo tax dégluwuñu conseil parce que tamit waxoon na nañu respecté leader yëpp lan moo tax yenn ci militants yi doon yuuxu Khalifa Sall ak Déthié ak kii euh, Pape Djibril Fall xam nga boo nee njaboot gi def leen lii mais yow moomuloo njaboot gi njaboot gi dafa am bët yu ñuy xoole mhm. dafa am jugement personnel bu ñuy def ci nit yow mën nga baale mu ngi mel na nit jow cokkaas ñu nga ne baal leen ko gaa ñi ni ah ñun de yow wax nga ñu baale leen ka parce que yow noonu lañ la yare parce que yow noonu ngay gisee waaye ñun ñii ñun dañ koy jëflante ak moom. mais lan la leen def ba tax ngeen di jëflante ak moom. no waxuma man ñun. dama ni ñi doon yooxoo. lan la leen Khalifa Sall loolu leen Khalifa Sall def mooy comportement bi Barthélemy Dias am. alors que Ousmane Sonko ma préciser que yàgg naa ko leeral leeraloon naa ko ci benn télé ba mu defee discours am il n'a pas fait allusion à Barthélemy Dias. déglu naa ko bu mun naa dugg sax plus loin parce que ñoom ils comprennent rien mhm. parce que dafa am discussion bu xaw a am bu nga xam ni waxtaanee nañ ko moom ci biir discours am mu am lu mu leeral mu ni attention mhm. na ngeen xam ni lépp lu waay di def yëg naa ko mhm. ci biir Pastef daf ko indi sax ci biir Pastef mu ni dinaa di téléphoner nit di ma déglu di ma enregistré ma xam ni mi ngi may enregistré ma bàyyi ko ci biir wax ka la mu bëgg dégg. Mm-hmm. loolu ba mu koy wax nañu xoolaat audio bi bu baax dafa ni ci biir Pastef booba waxul sax waat Yewwi Askan Wi comment maintenant la benn nit bu nga xam ni doo leader parce que yow da am leader conférence des leaders doo fa toog benn nit génn en solitaire daal di ni nangam man lay waxal nangam nangam nangam loolu moo indi coow li est-ce que déggaan nga Ousmane Sonko waxaat ci loolu. non seulement waxaatul ci loolu mais dafa ni bu ci kenn waxaat c'est extrêmement important. Mm-hmm. waxaatul ci loolu mais am na ñu ci doon tëb di mu ni leen loolu c'est amul solo. focus 2024. Mm-hmm. parce que lii ñuy wax nii dafay diviser opposition bi te man Ousmane Sonko bugguma opposition bi diviser wu man li ma bëgg mooy waa opposition bi ànd benn cible la ñu am mooy jële fi Macky Sall. Mm-hmm. loolu il faut que ñoom ñëpp ñu intégré ko tey ci journaux yi gis naa ñu wane Barthélémy Diaz. ci soleil. Mhm. soleil nga xam ni ku mu génne rek xam nañu presque foo féete. Mhm. ñu génne ko ak président Macky mais loolu yëpp damay wax ni président Macky Sall ci boppam mu ngi ci objectif am bi mu nga xam ni daf ko fixé woon tout au début muy réduire l' opposition à sa plus simple expression mooy diviser pour régner. Mhm. même ñun ñi nekk Pastef ñu ñuy topp guddi bëccëg suba ngoon ñëw leen kii du dara. ñëw leen ñu jox leen xaalis ñëw leen amu leen oto ñëw leen amu leen kër loolu rek la ñu toppee guddi bëccëg suba ak ngoon ñoom mënuñ comprendre ni nit mun na di def dara ngir jaamu yàlla. parce que li ñuy defal askan bi lañ koy defal ñun suñu temps wéy na bëggatuñu dara ngir yàlla mais loolu ñëpp lu ñu raisonné noonu pour réew mi jóg nag il faut que ñu dellu sur les préalables mooy lan ñu xam ni ñun suñu temps wéy na xale yi fi nekk war a jóg. suñu ay doom lañ suñu ay jarbaat lañu suñu ay sët lañu ñooñu la ñu war a liggéeyal pour ëllëg lalal leen pour ñu am fu ñu tëdd parce que ñun suñuy euh, bàyyi lalaluñ ñu woon parce que dañ fi fekk sous développement ñun dañu bëgg balaa ñu di ñëw mu am développement mooy ñu laal leen fu ñu tëdd bu ñu ñëwee mën a noppalu. est-ce que développement bokk na ci li nga xamante ni waa taxaw ñu ngi koy jàppee ni euh, waa Pastef noonu la ñuy dundee jàpp ne actuellement keneen warul am point de vue keneen warul mën a am idée lan moo tax bu nit jugee ci euh, pouvoir ñëw ci opposition ñu tàcc ko te nit bu jugee ci opposition dem ci pouvoir ñu xarab ko. bu jógee ci opposition ñëw ci pouvoir déggloo Ousmane sonk xarab ko xam nga. dañuy jël opinion publique bi bëgg ko attribuer Ousmane Sonko loolu mooy problème bi y a l'opinion publique keroog ñi yooxu c'est l'opinion publique ce n'est pas Ousmane Sonko c'est pas des partisans. mais de, l'opinion de... publique. Euh, ah. est derrière, derrière mais l'opinion publique dañuy choisir fan la ñuy toog dañuy choisir kan la ñuy nekk est-ce que loolu man mën naa leen ko tànn du Barthélémy Diaz du Khalifa Sall du maali Gakou du Ousmane Sonko kenn mun leen tànnal fu ñuy nekk. ñoom ñoo am seen jugement personnel ñooñu la ñu bëgg léegi orienter seen xel opinion publique kenn mënul orienter xelam yow sa souhait ngay wax mhm. Ousmane Sonko dafa wax souhaitam dafa ne bu leen leen yooxu te benn ñaareel ba même El Malick bi mu jëlee parole rappelé na ni Ousmane Sonko nee bu kenn yooxu est que terewul xale yi yooxu mhm. xale yi dañu dégluwul sax li li li kii di wax ñoom seen opinion personnelle la ñu am parce que ay nit la ñu dañuy dund mhm. dañu am xalaat looloo tax ñuy def noonu loolu dañu leen koy nangul ba pare di leen jàjjanti di leen wax ne lii baaxul lii bu leen ko def parce que xam nga mooy li ma la wax léegi euh, ki nga xam ni moom dafa taxaw am benn comportement mais doo xam lu ñu lay tonto ñoom dañuy wax ni Ousmane Sonko dafa yaru Ousmane Sonko dafay baale Ousmane Sonko dafay jéggale Ousmane Sonko faalewul dara lu dul projet bii muy F2 F24 ñun dañ leen bëgg xëcc ci loolu mais ñoom bu ñu gisee keneen am beneen comportement ñoom seen jugement personnel la ñuy doxee kooku kenn mënu leen ko dindil loolu il faut que ça soit très clair il faut que pas que ñuy wax ni way euh, ku jóge pouvoir dem opposition mais attention xam nga dafa am ñaari terrain terrain bi terrain fertile la terrain bi terrain désertique la terrain bu désertique bi amul dara mooy ñun ñii amuñu oto amuñu ay moyens de déplacement amuñu lu bari ba pare militants yi ñu ngi ñuy topp pour ñu leen di satisfaire parce que politique gu Sénégal loolu la ñu tàmmal. mu am benn terrain fertile nga xam ne boo ñëwee dañ lay jox budget jox la xaalis nga xam ni di mën a dem corrompre population bi kon ku jóge ci terrain désertique dem terrain fertile war nañ la critiquer. léegi bu fekkee mu ñëw ku jóge nag ci terrain fertil ñëw ci terrain désertique kooku véritablement kooku jàmbaar loolu rek moo tax xëy na opinion publique bi képp ku dem ci pouvoir bi ñu ni la hey jaam nga de yow yow de mu ñëw yow la ñu doon xaar teetu ci yow amuñu ko. mais est que nekkul question euh, d'ambition est-ce que nekkul question boo xamante ni ku ci nekk fa nga yëg sa bopp foofu ngay dem ku ci nekk fa nga jàpp ne foofu nga mën a liggéeyal askan wi foofu ngay dem tamit parce euh, la ñu wax te démocratie la ñu wax. mais li euh, liggéeyal askan bi mooy fexe ba li askan bi bëgg nga taxaw ci mais ñàkk liggéeyal askan bi mooy dem fu nga xam ne day am corruption concussion. achat de conscience détournement de deniers publics mu leer naññi. léegi koo xamante ni def na nga koy critiquer mu leer naññi. munoo xëy suba dem foofu. léegi ki nga xamante ni def na plus de onze ans. ci ci ci ci camp boobu ngay wax. Euh, def fa nga xamante ni mooy fa ngay tuddee acharnement fa nga tuddee achat de conscience fa nga tuddee corruption. Mhm. jóge fa ñëw ci camp bi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci opposition bi naka lañ ko mën a jàngatee ñu accepter ko également. kooku dañ ko war a accepter à bras xam nga lu tax. Mhm. bul fàtte ni ñun. ay jullit lañu fondamentaux l'islam mooy lan mais nit da doon ñëw bëgg rey yonent bi ñu wóor que ni di dafa mu ni tijji leen ñu tijji mu ni xel leen ndax jàmm la indi ñu ni jàmm la indi ñu jël kooku dugal ko ci biir lislaam ba mu mujj nekk fa érudit ki réccu ca la mu doon def démb kooku suñu borom dafa ne nangul leen ko tuubam mi ngi mel na nga ni lu tax ku tuub dugg ci lislaam ñu accepté la ku génn lislaam ñu xarab la. mais mais nekkuñu ci ah, religion. ah non mais lu baax la ak lu nga xam ne du du yoon. xam nga fii ñu ngi defendre la cause des population fee ñu ngi rey population bi ñëpp di ko gis rey population bi ñëpp di ko gis mooy nga jël un kilomètre de route facturé que dix milliards mais yaa ngi rey population bi. hôpital bu nga xam ne mi ngi war a jar six milliards nga facturé na quatorze milliards yaa ngi rey population bi. foo xam ni ñu ngi tëdd ñun ñëpp ñuy dóore naan ku nekk na tëdd 9h 8h gaañ a dem ca banque ba di jël ay million chaque quinze jours quinze million yaa ngi rey population bi te loolu dañ ko wane ba ñëpp gis ko kon boo gisee ñuy def noonu nga ni yow da ngay dem ci ñoom tafu ci ñoom xëy na la ñuy def nga bëgg loolu mooy problème bi ñii nga xam ni nag ñoom ay la yéen ñu ngi défendre boobu ba léegi ay principe mais tey Amadou Ba bu génnoon ci ñoom ñëw ci ñun mais ñu nangul ko ko. dañuy jàpp ni dafa réccu dañuy jàpp ni kii la mu doon def kat daf ci bëgg génn. doo jàpp ni yàgg na ci système bi comme yenn anti système ngeen di woote. non anti système am na ñu nekk si système bi ñu nga xam ni dañuy ñëw ci anti système mooy li ma la wax nekkoon ci mbir maanaam di génn guddi di def lu la neex di baali di def parce que yàgg nga ni man lii dootuma ko def damay tuub ñëw mais boo tuubee yow dañ la war a encadrer sax bu ko defee nga réccu léegi nag dafa am ñaar. am na kuy gàmm am na kuy raas déem waaye yow munoo ci xam dara yow yow nit rek nga ki ñëw ni man de tuub naa maa ngi sa wet wax dëgg yàlla lii laa bëgg mais da nga koy nangul bu fekkee nag ci biir xelam dafa am leneen lu mu nar hmm. wala daf lay ñëw pour ñooru la wala pour xool la wala pour espionner la loolu yow munoo ko xam hmm. mais nag tu dois être vigilant méfiant également hmm. euh, li ñu des si si waxtu bareewul ñu waxtaanee actualité li nga xamante ni mooy euh, Euh, procès bi ñu dëgmal di Adji Sarr Ousmane Sonko ni ki ëllëg lañ koy dëgmal actuellement ñu gis ne euh, ndawi militants yi ñëpp jóge nañu ci région yi daal di wutali Ziguinchor juste ne dañu koy protégé fan ngeen toll actuellement ci protection boobu. ah comme ni ko ñëpp gisee ñu ngi koy protéger ils sont la bas ils dañuy passer la nuit di veiller à ce que kenn ba man sax jàpp ma ni dañuy parce que véritablement am na yoo xam ni yëfu caaxaan la yow munoo jàpp nit buñ nee benn ñaar nga barricade këram. buñ nee ñaar ñett nga fekk ka Ziguinchor buñ nee ñett ñeent nga bëgg ko jàpp yóbbu waaw lan la mais lii mosul am ci Sénégal Macky arrête na arrêté lii parce que lii lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa xasee ba am kër dootu fa jóg mooy lan mooy waay waaye xale yi tàmmuñu woon prison léegi koo dem fekk prison day mel na du dara ci moom kon ñu ngi désacraliser prison prison bi nga xam ni dafa amoon cachet bu ko nit ñi tegoon kenn bëggu fa dem tey yow yaa ngi fexe ba prison bi nit ñi ñame ko gendarme yii nga xam ni ndeysaan dañ doon nekk seen biir caserne ñëpp ku gis gendarmerie ah ah un grand respect léegi foo yaa ngi gis gendarmerie foo romb yaa ngi gis gendarmerie. Mhm. te kat man li ma ci gën a metti mooy ñu nga dem ba jigéen soor di am lu ñuy rëbb waaye xale yi ci suufu pont bi di 15 di def banditisme nekk suñu ay doom mu naqari ñu trop nga xam ne war nañu ñëw foofu. fexe ba jële fi xale yi xoolal ni mu yombe mm-hmm. xale ya nee nañu kenn mun leen fa jële mm-hmm. waaw loolu est-ce que liggéey la yow li ñu la dénk réew la wala ab koñ la wala sa ay ambition personnelle lañ la dénk loolu mooy problème bi nit bu ñu la dénkee mbir da xam ni ñu la dénk fii banditisme baa ngi fii du jeex fii rey nañ fi imam bu nga xam ne ñu ngi ko rey fii ci ci ci foos bi euh, fële ci Grand Yoff imam Tall ñuy jaale ay mbokkam ba léegi di ko naqarlu di wax ne ana enquête bi fu mu toll wax dëgg yàlla bëgg nañu xam lu ko rey loolu mooy sécurité nga gis ay yeneen nit Philibert Sambou ak keneen ba léegi leerul ah ka kabu leerul donc ñooñu est-ce que duñ ko leeral loolu mooy rôle police loolu mooy rôle gendarmerie waaye du acharnement ci benn nit nga xam ni yow boo dee acharnement ci am na ñeneen ñuy def leneen ñuy raas dem te wax dëgg yàlla ñu ngi continuer dans leur forfait ba pare ñu war a def attention wax naa ko fépp ci taal réew mi taal réew mi mooy ay nit am droit manifester kon keroog yàlla joxaat na ma raison manifestation bi ñu mujj def place de l'obélisque li fa nekk c'est des milliers et de personnes baaraam damu fa baraam damu fa waaw kon tee ñu bàyyi bu ñu nee dañuy manifester ñu interdire que daa di ni gendarme yeey képp ku def fukki nit yu taxaw na ngeen leen sànni grenade lacrymogène mu tas bu ko defee ñiy raas dem dugg ca ñu boole ñëpp jàpp. mais lan moo tax yéen bu ñu leen autorisé du du taw coow du am te bu ñu leen autorisé wul tamit ngeen ne force yéen bu ngeen amee autorisation di ngeen manifester bu ngeen amul autorisation di ngeen manifester également est-ce que du loolu moo tax parfois complication yi di am. complication yi li koy indi mooy euh, euh, bañ a autorisé ça doit être une exception cest dire bu ñu dugalee fukki demande benn lañ ci war a ñàkk autorisé mais bu demee ba bugg nekk règle mais ñun duñ ko nangu c' la résistance c' est la résistance et c' la désobéissance civile mhm. c'est-à-dire euh, du autorisé woon waaye dinaa ko def loolu mooy désobéissance civile mhm. y a pas autre chose c'est-à-dire désobéissance civile je prends mes droits sama ay droit dama bokk ci réew mi nga war ma jox sama ay droit nga bañ ma ka jox ma jël ko par force loolu yàgg nañ ko gis président Macky Sall mi en 2011 dafa ni président Abdoulaye Wade troisième mandat boo ko waxee nous allons te déloger au pare parce que dafa ni waa Wade lii nga xam ni yow kat suñu droit la ñun sénégalais yi boo ñu ko joxul ñun dinañ ko fokkati loolu yàgg na fi moom président Macky Sall daf ko daan def ñëpp dañ ko doon def kon tey y a rien d'extraordinaire aujourd'hui on doit retourner à l'orthodoxie mooy lépp lu nga xam ni yoon maye na ko ñu koy def lépp lu nga xam ni yoon tere na ko ñu bàyyi ko loolu bu amoon kon désobéissance civile du am kon euh, braver de manifestation du am kon réew mi day dox ci jàmm kon tey lépp lu président teg lu nga xam ni dialogue la wala dara nit ñi dañ fay dem waaye nag na teg yëf yi ci yoon mais boo tegul yëf yi ci yoon ba pare nga ni da ngay dialoguer loolu mooy problème bi moi je prie pour que président Macky Sall teggi tànkam fi mu ko teg ndax kat fii mu teg tànkam pour pourtant mun na reculer mais pourquoi il veut insister si ay affaires yu nga xam ni véritablement yow dañ la jox tey réew mi en mille kenn xamula woon mille 2012 ñu jox la réew kon Sénégal def na lépp pour yow kon delloo jukkal Sénégal mooy fexe ba jàmm am Sénégal te nee naa luy taal réew mi ci ñoom président ci ñoom état bi lay jóge parce que ni ñuy gérer ni ñuy joxe ordre ay gendarme ni ñuy bëgg acharné woo ki kaw population bi nga xam ne da nga ko war a protéger parce que la police la gendarmerie les forces de l'ordre son chargées de protéger la population mais bu fekkee ni ñëw nga bay acharné wu ci population boobu parce que da jot ndigal ah dégg naa am na ñoo xam neen duñ ko daw mhm, léegi am na ñoo xamante ni euh, déjà euh, yebal nañu leen euh, ci information yu jot ngir ñu exécuter opération de prise de de corps bi actuellement naka ngeen jàngatee loolu. Ah, opération de prise de corps ñoom dañ ne dañ koy exécuter bu ñu nañ fi fekk xale mhm. jeex na y' a problème bu fekkee ni mën nañu réussir loolu nañ ko def. Mhm. ba pare nañu xam leen nañu xam ne euh, tout toutes les cellules de Pastef sont en état d'alerte tous les Sénégalais sont en état d'alerte mhm. parce que peuple bi li mu bëggul mënuloo ko ko def loo te li mu bëggul mooy dem di forcer ay nit di def di n'importe quoi ci dossier bu nga xam ni dossier totalement vide la am na benn journal bu ko bind tey un dossier vide qui crée des comme ça loolu du yoon loolu bu demee ba indi opération de prise de corps nga xam ni mën na indi ay mort maa ngi ñaan président Macky Sall mu dellu ginnaaw ci yooyu. Mhm. parce que loolu jëmul kër. te loolu l'histoire daf koy retenir les grands hommes mooy ñi dem ba wóor na leen ni lii day indi coow ñu teg ci seen conc dafa ne am na dossier yu mu teg concam. Mhm. mais dossier bi amul dossier bu ko gën a brûlant pourquoi tegu ci am wala dafa ragal ni dossier bi moo ko fii jële loolu mooy problème bi aussi. Mhm. moom nag na xam ni tôt ou tard daf fiy jóge te vingt 2024 bii ci lay jeexal te kenn mënul tere mu jeexal 2024 parce que duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moomul réew mi 2000 kenn xamu ko woon 2012 jox nañ ko réew mi nañ njukkal waa réew mi delloo réew mi. léegi nag lan lañu mën a xaaree ni actuellement. Euh, ci camp bu Pastef fi mu nekk nii parce que tamit euh, bu fekkente ni Ousmane Sonko wuy siwul ni ki tey waroon na présenté wu si signé wane ni dina wuy si ni ki ëllëg bu fekkente ni nag wuy siwul jëlul décision pour wuy si ñu daal di exécuter boobu la opération lan lañ war a mën a xaar ni ci yéen. mais exécuter boobu opération nañ ko exécuter c'est-à-dire xam nga les plans la ak euh, les stratégies là ne se dévoilent pas la voie publique kenn mënul wax lii la ñuy def lii la ñuy def lii la ñuy def. mais commencé ngeen quand non li ñu commencé mooy protéger ko. non gis nañu ñu ngi taal ay mbedd euh, Ziguinchor man man man je j'ai même pas fait attention à ça de toute façon xam naa ni yàlla a y a le mécontentement populaire. Mm-hmm. qui commence à se détruire te man loolu yéenewuma ko Sénégal. Mm-hmm. parce que yooyu du tabax dara ñun réew bu ñu ko dee jël dañ ko bëgg a jël ci jàmm ba mën a tabax réew moom waaye euh, di def ay actes yoo xam ne day indi mécontentement populaire gaañ a di taal pëna Euh, am lu xew Ngor nga xam ni maa ngi koy naqarlu di jaale waa Ngor di attirer attention président Macky Sall ci ni li xew Ngor mën na xew Mbambilor parce que Mbambilor Xafoor ture dem na fa jël fa ay terre euh, yu nga xam ni daf ko jël pour le compte d'une société te ñooñu dafa am ay boroom yu nga xam ni ñu ngi ko yore yore seen këyit yore seen lépp loolu mooy taal réew. Mm-hmm. ma ni lépp luy taal réew mi nañ ko teg fële te jéem a jàmmoo ci réew mi képp lu waaye am nga yem ca xam ni lii nga am bañ jël yëfu jaamur. loolu c'est extrêmement important. am na solo euh, mu mel ni euh, Birame Khoudia waxtu bi mi ñuy tënku dama lay bàyyi rek euh, ana lan nga ciy dolli laataa ñu lay bàyyi nga tàggatoo ak internet yi. waaw li ma ciy dolli rek mooy li nga xam ni caaxaan la ci réew mi ñu koy def nga xam ni jëmalewul réew mi kanam nañ ko bàyyi acharnement sur des opposants nañ ko bàyyi te économiquement ñu taxaw ci réew mi dox ndax fii mu ne dund bi seer na. location yi ñu ñun woon dañ koy wàññi dara wàññeekuwul bu ko defee xale yi amuñu xëy ñu ngi am ay problème mu doon bombe social bu nga xam ni mi ngi nekk ci kaw Macky Sall bombe sociale boobu nag man du ma yëkkati almet di ko xosi di ko teg ci kaw bombe bi dama koy digal pour mu teg yëpp ci suuf te économiquement mu xool lan la mun a def ay jéego bu Sénégal dem ci kanam ba pare di sanctionner les fauteurs de trouble ñi nga xam ni dañuy jël suñu alal deux cent cinquante et quelques euh, prisonniers yi nekk ci kaso bi bu ñu compté woon ñi détourné suñu xaalis dinañu am 400 yu nekk ci kaso bi ñooñu ñëw mérité nekk ci kaso bi tey. Mmh. waxtu yi tënk nañu kon